voilà man Amadou Sy laa tudd euh, maa ngi dëkk Yeumbeul route de Bourne quartier Abdou Bass. Amadou Sy ràññee nañ la fii kañ nga door liggéey bi ak lan moo ko waral. Euh, maa ngi door liggéey bi depuis c'est l'an 2000 ba l'an 2016 ma ça fait 16 ans maa ngi ci liggéey bi bon comme ni ma ko waxee parce que yàlla moo dogal lii ma jaar ci moom moo ko dogal parce que jaar-jaar bi fu mu commencé mooy l'an 2000 fekk boobu vendredi la woon ma julli jumaa ba pare toog di noppale ko alors am un camion bu ñew panne gasoil ken nek alors ma gis embouteillage comme c'était un vendredi mu vraiment mu metti trop alors fekk bob juste que je suis benn soufflet bo xam sama xala sama doom ñoko don jëkante mo jël ko def ko sama poste soufflet bi ma alors je ne dimbali len amna ñu naan wax non dimbali mais non non dimbali len ma nek fa di débrouiller di ci auto yi di vraiment ma deux heures de temps bi auto yi demee ba yalla def camion bi tamit mu dem pomper auto bi mu dem vraiment ma toga fop di noppaleku ma toogee noppaleku bi ma ñibé kër ga nak mu melni dafa am lu ma lii nga def tay war nga ko continuer parce que lu bax la alors dal vraiment foofu la commencé affaire bi ma dem nak kër ga tok xalat ne li war na ko mëna def foofu la jëlé décision est-ce que méttiwul comme amna na ñenn ñi dañ koy jang di ko def mais yow autodidacte nga ci ndax au début amul won jafé jafé au début jafé jafé yi metti na. du ma mën a wax jafe-jafe yëpp mais jafe-jafe yi parce que d'abord, abord bi ma toogee ba jël décision bi tout d'abord, abord ma man léegi parce que tamit père de famille laa donc li ma njëkk xalaat naka la ma nit ñi di gisee parce que sénégalais fàtt na lan mooy civisme donc nga taxaw ci tali bi di régler circulation automatiquement dañu naan kii xam naa dof bu bees la automatiquement foofu lañ lay ko eh, et ñu bari, foofu lañ ma classé woon mais yàlla dogal ma ne lii su ma continuer di ko def bu yàggee dina nit ñi dinañ mën comprendre lan la ci djublu mais dem na ba ben instant vraiment ma xol ne liggéey bi nit ñi commencé mu leen di intéresser suma fa nekkul day xat mané légui dama jël engagement bàyyi sama petit commerce yi ma doon yëpp ma consacré lu léegi tali alors lii la jëlé mais avant aussi il faut que ma waxtaan ak soxna si parce que tamit mom am na ci part de responsabilité nga tok ak sa jabar vraiment nga wara dem wuti dépense nga ñëw ne ko maa ni talib ya yaa nekkon nekkoon liggéeyu ma moom nan la koy gissé parce que mom tamit vraiment mom moma gëna gën motiver mu ne ma amul ben problème man lepp lo xalaat ni dang ko def te nga vraiment nga jël décision man andana ci ci alors vraiment noonu la commencé. ma ngi profito di gërëm police ak gendarmerie parce que aussi ñom biñu togué gis vraiment man motivation bi ma am et vraiment ñu nek ki kat pourquoi pas aussi ñu ñu may ko ben sens pour que mu won nit ñi na civisme amna parce que nit un pays ne peut pas développer soo amul civisme.

donc vraiment loolu bokk na ci li jaaxal nit ñi bokk na ci aussi tey li tax ñu gën a am benn vraiment benn amul ci man ten tey mooy ay xale tout récemment man dafa am benn xale bu ñëw ci man dix ans la am mais dafa ñëw fekk ma julli ba pare mu ne ma tonton ça va ma ne ko ça va mu ne tonton je vous aime beaucoup ce que tu c'est très joli alors la vraiment def ma daf ma daf ma ci am carrément parce que xale bu ndaw am na mag ñoo xam ne sax gisuñu xalaat boobu mais xale bu ndaw am idée boobu mu ñëw correctement toog sama loolu daf ma daf ma jox benn plaisir. nomination bi dafa dafa nekk benn plaisir bu mag ci man parce que tey même sama waa kër depuis démb rek tey ci suba bi may xëy sama doom mu ngi may wax affaire bi kañ la ma ne ko affaire bi samedi la. donc ñoom ñëpp actuellement dafa am benn fierté sama waa kër sama dëkkandoo ñoom ñëpp vraiment ñu ngi xaar affaire bi dafa nekk lu rëy ci moom parce que man tamit. tey maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant parce que tamit nit boo toogee di liggéey nit toog ba xalaat def lu rafet ci yow da war nga ko wax jërëjëf kon yéen tamit maa ngi leen di remercier vraiment maa ngi leen di sant ci 这个。